seize milliards kese ñu baal ko li des ñu baal ko cent trent six milliards ci suñu xaalis loolu haute trahison la parce que moomul xaalis bi muy baale parce que ministre de l'économie et des finances mënul jël d'autorité décision boobu de dénonciation fiscale sur des milliards parce que day siège conseil des ministres te président mooy président conseil des ministres loolu même bu ko defoon sax te amul ci ndigal da koy da ci ran non loolu mun a nekk c'est le président de la république qui définit la politique de l'État loolu la ñuy wax mhm. donc politique fiscale bi tam ci politique la bokk moo koy définir mhm. donc su renonciation fiscale amee ci suñu moomeel ñun ci jamono boobu boo xam ne yow yaa ngi wut xaalis donc c'est de la haute trahison mhm. te ci poñ yi ñu war a waxtaane am na yeneen exonération yoo xam ne dinañ ci ñu ñu ngi ñu ngi ci foofu noonu foog nga teg ñu exemple waaw teg ci sa baaraam exemple bi moo ko moo cof sujet bi rek pour won la ni bu dee haute trahison ñàkkul ñu lu ñu toppee Macky Sall mhm. mais mën nañ ko toppee sax lu dul haute trahison mais mën nañ ko topp pour enrichissement illicite te boobu nekkul woon président la république Macky Sall ku yomb teg loxo la mhm. parce que boobu nekkul woon président de la république mhm. te te am na yeneen tamit yu feeñ ci contrat yi gis nga gis nga blogu Kayar bi euh, Cosmos sax mu muy daw gannaaw bi BP daw xam nga BP génn na yaakaar teranga ah mais yëg nga ni Cosmos aussi mu ngi mu mu ngi rocceeku mu ngi jaay ay paaram donc ñoom lu ñuy daw lan la parce que on va revoir ça e jaarul yoon. te loolu responsabilité directe et personnelle lu Macky Sall mu ngi ci. te waxuñu nag euh, euh, euh, l'environnement parapétrolier. maanaam les contrats de service et d'ingénierie. yi yi nga xam ni daf ci am ay délits d'initié yu bëri bëri bëri bëri bëri donc euh, bientôt on va entendre parler de Teranga euh, Naval Security. et, et d'autres. entreprises parapétrolières yoo xam ni. ci ay scandale la ñu nekk. ak ay ay donc Macky Sall si mën nañ ko topp mën nañ ko woo pour mu ñëw euh, su ñëwul nag ñu doog a xalaat euh, mandat d'arrêt international. Euh, mais eggaguñu ci président Macky Sall mais tey fu ñu demoon nee ngeen da ngeen yor benn liste liste boobu exactement ñan ñoo ci nekk ñan ñoo exposé spolié comme ni ngeen ko jàppee suufu Sénégal est-ce que mën nañu xam ñan exactement parce que sénégalais évidemment wëgg nañ koo xam en fait. mais loolu. Mhm. loolu xam nga dinañ ko xam euh, parce que on procède par étape. Mhm. parce que waneeguñu yëpp. Mhm. tur yi. dana génn de façon irréfutable te kenn du sëqat. am na buy génn de façon. Hmm? <laughs> am na buy génn souvent même. non dafa am loo xam ne. mënuñu ko nëbb mënuñu nëbb ni Farba Ngom moo doon jaayal gars yi mënuñu nëbb ni Mame Boye Diao am na responsabilité ci signature parce que c'est le directeur des impôts mënuñu mhm. nëbb ni Descos dafa gëmm ci construction yi loolu munuñu ko nëbb munuñu nëbb ni am na ay grands responsables yu yu APR yoo xam ne mais dañ leen may foofu ñoom ñuy maye sax ñoom sax dañ doon maye foofu mhm. euh, euh, tudd leen jotagul mais ñu mais ñoom xam nañu fi ñu jëm xam nañu seen kaw lañ jëm donc fu mu nekk nii on veut à l'aise les autorités mm-hmm. parce que li ñu ciy jublu mm-hmm. moo ñoom ñu saytu parce que bu jógee ci ñoom mm-hmm. maanaam ci nguur gi ñu ñëw xoolal ñu ni diw ak diw ak diw ak diw loolu amul lu ñuy lam-lame on passe à autre chose mais suñu leen tudd tuddalee ay tur ci instant bii rek loolu day nuru chasse au sorcières bi ñu doon wax mais jot nañ fi tudd ñaari tur kenn kii mooy Farba Ngom. Mhm. Farba Ngom ñëpp xam nañ ne député la. Mhm. mais aussi ñu xam ko ci leneen mooy c'est le griot du président Macky Sall. amul mhm. benn fonction bi nga xam ne ni. tabb nañ ko ci et nan la def ba jot bu dee mooma suuf su doy noonu ci réew mi. mais moom moom moo fi jógoon nit réeral neuf cent millions kër wala boobu nañ ko fàtte. waaw neuf cent millions ça doit être dans une maison en liquide. mais image imaginez nit ku ñuy sàcc neuf cent millions biir këram mu am doye di mhm. déclarer ko te xamul li muy déclarer sax délit la parce que on ne doit pas garder autant d' mhm. chez soi loolu moo waral banque jóg mhm. loolu banque la war a nekk warul nekk këram donc comme tu dis amul benn fonction bu ko permettre muy réeral neuf cent millions kooku tey jii bu ñu ko joxee suuf mu jaay te nee moom loolu la xam moom fu mu gis suuf na ko jaay jël commission parce que loolu mooy liggéeyam mais may fàttali tamit ni président de la république. Mhm. bi muy décla bi muy déposé euh, déclaration de patrimoine am en 2012. ce qu'il n'a pas fait bi muy génn ce qu'il n'a pas fait quand il a été réélu mhm. moi je crois que Macky Sall yombal nañ ko mbir trop parce que balaa muy dem dafa waroon a déposer sa déclaration de patrimoine mhm. léegi moom ci biir patrimoine am bokkoon na ci benn SCI société civile immobilière boo xam ne moom moom moom 60 pour cent bi Madame Faye moom 40 pour cent bi loolu am na ci droit me dira mais au moins sa mhm. indique que ñoom bien avant ñu yor la présidence de la république mhm. intéressé woon nañu ci affaire immobilier ci ak affaire suuf parce que ci déclaration de patrimoine am mhm. na nit ñi dem Google mu ngi ci déclaration de patrimoine de Macky Sall de 2012 bokk na ci benn société civile immobilière boo xam ne Macky moom moom 60 Marème moom 40 donc ça veut dire que ñoom am nañu déjà intérêt pour suuf donc su ñu amee un Farba Ngom à côté de koo xam ne ci suuf la doon liggéey. avant loolu courtier la woon mais suufu dëkk bi dañ koy saax saaxe li li ma la wax léegi patrimoine bâti bi nga xam ne sax bàyyiwuñ ko. ay immeuble yoo xam ne dañ ko jox ay turc ay marocain ay chinois ñu raser ko di ci tabax immeuble ay immeuble ay ay ay ay ay ay immeuble historique ñu mel ni immeuble Bière de Lille xam nga euh, ñu raser ko di fa tabax tour loolu je crois que c'est une atteinte au patrimoine mhm. de tout le monde mhm. et surtout quand ce patrimoine est inaliénable mhm. c'est une circonstance très aggravante loolu Macky Sall moo ko def fii euh, euh, commandement gendarmerie di nekkoon rue Blanchot te mu dend ak immeuble building administratif bëggoon naa tamit ñu dem fa Gabi Pérez ce marchand d'armes lañ ko jox c'est plus de quatre mille mètres contre la construction Euh, du du haut commandement de la gendarmerie biir caserne Samba Diéry Diallo mm-hmm. loolu moo nekkoon contrepartie bi est-ce que valeur bu mel noonu jar na ko mm-hmm. parce que foofu le mètre carré c'est c'est deux millions et demi même disons même si c'est deux millions mm-hmm. mais c'est quatre-vingts milliards de valeur quatre mille mètres foofu c'est quatre-vingts milliards voilà donc léegi loolu une une une une une valeur comme ça euh, contrepartie bi euh, quatre-vingts wala huit mille euh, par deux deux deux deux millions. Mm -hmm. c'est c'est combien. c'est pas deux milliards. mille mètres par deux waaw ah deux milliards. c'est deux milliards. Mhm. donc euh, quatre mille mètres yi c'est huit milliards. Mhm. Hmm? donc euh, huit milliards. Mhm. Euh, ci ci ci ci ci ci ci au cœur de la ville. yow échanger woo ko lu dul tabaxal gendarmerie benn benn benn bâtiment boo xam ni mooy seen direction mooy seen haut commandement bâtiment boobu defoo ci milliard wala boo ci defee milliard tamit ci la yem bâtiment bu rëy la de waaw mais bâtiment bu mënul rëy ba ba yóbbu lu ëpp deux milliards mm-hmm. te seen blindé ak yëpp fa lañ koy mënul non bâtiment bi laa wax wax ma fi blindé yi di nekk de mm-hmm. ah bâtiment bi rek bâtiment bi laa wax bâtiment batiment bi nga xam ni yow dem nga foofu ah, bâtiment bu bees bi moo janook euh, cité ah, de l'émergence foofu pour dugal blindé yi mm-hmm. xam nga Euh, biir caserne Samba Diéry Diallo. dañ fa tabax benn benn benn direction gendarmerie boobu. pour remplacer ba ñu leen jox foofu. loolu moo doon contrepartie bi. loolu mënul absorber plus de deux milliards. bâtiment boobu. te li ñu leen jox valeur huit milliards te valeur boobu day yokk. parce que suuf day yokk. alors que xaalis day déprécier wu sax day jeex. mais mu ñoom li ñu leen jox foofu. après lan lañu fay def te lépp lu ñu fay def day tiim palais comme building administratif ñu jox ko une famille boo xam ne dañuy impliqué wu sur le marché de quarante cinq milliards d'armement petit boubé petit boubé mm-hmm. liggéey naag Gabi Pérez il l'a avoué mm-hmm. ils ont des connexion son fils euh, Adam Pérez mm-hmm. moom moo nekk dans l'immobilier moom la ñu jox foofu en fait c'est son fils moom lañu jox foofu à des trades donc yooyu mais yu ñu war a lijjanti la te c'est de la seule responsabilité du président Macky Sall moom moo leen signé loolu moo leen jox suñu patrimoine fii gendarmerie nekkoon mu joxe ko jal Diop gis nga da koy jaay huit hectares yooyu suñu hôpital nee na trois hectares daf ko bëgg a jaay pour tabaxee li des il l'a fait Dantec il la fait des choses yoo xam ne avancé na je crois que xam nga man maa bëggul woon ñu taxaw foofu mhm, mais bu ñu demoon ci gannaaw côté fu morgue bi nekkoon mais da ngay yéem foofu hôtel bu imposante hôtel ba moo njëkk a pare hôpital donc l'objectif c'était l'hôtel parce que tu surplombes la mer gis nga foofu tu surplombes la mer partout donc yooyu je crois que Macky Sall doit répondre de ses responsabilités parce que ñu ngi attardé wu sax ci moom te moom vraiment euh, voilà mën nañu bañ a mhm. jël benn temps bi si moom keneen ku ñu tudd ku ñu tudd ki nga tudd mooy euh, Mame Boye Diao moom itamit doonoon fi directeur général des impôts et domaines mm-hmm. responsabilité am lan la ci li xew lu ñu gis tey xam nga waa impôts et domaines mm-hmm. du moom rek yàlla yàlla yàlla Mamadou Gueye laa. Mamadou Gueye waaw bi fa jógee. moo fi moo fi moom dafa mel ni dafa mel ni nag moom dafa dafa dafa am baatin quoi parce que moom duñ ko tudd te moom mu ngi ci. Mhm. parce que ñoom plus discret. waaw ñoom euh, waaw il est discret il est moins connu. Mhm. moins connu que Mamboy. waaw Mamboy moo gën a <laughs> ñoom euh, xam nga cité yooyu ñu def ay immeuble yëpp. Mhm. ay bail la parce que su ma nee ay boo la peut-être nit ñi duñu mën a comprendre. ñu ñi bàyyi la xam ko ay bàyyi la. Mhm. te olof la ñuy làkk. léegi bàyyi ñoom duñ la defal bàyyi directement dañ lay defal notification mais ñoom ñooy signé notification yi. léegi buñ man tey ji suñu ma joxee dix notification mhm. man damay wut client rek su ma su ma yow nga nekk sama client ma ma ma bëgg la jaay. Mhm. notification bi laa lay jox nga yóbbu impôt domaine ñu def ko ñu def ko sa tour direct. ñu def ko sa tour direct mhm. te ki kay def sa tour direct mhm. du ko du ko def gratuitement donc loolu la ñu war a xoolaat au delà de Mame booy Diao ak Mamadou Gueye mhm. fonctionnement wu impôt et domaine ak cadastre yooyu yëpp la